FTN Media. mbiram déclaration de politique générale fi mu ne na te partagé vidéo bi ngir ñu bare bari mën a jot ci xibaar bi xibaar bi président de la république am na la déclaration de politique générale bi fi mu ne jàppal ko 13 septembre di fukki fan ak ñett septembre bi ñu nekk loola mooy li njiitu réew mi ci président assemblée nationale Amadou mam Diop yóot ko bataaxal ngir yëgal ko ko gannaaw loola ci la assemblée nationale woote ndaje conférence des président ñu daldi di loolu président de la république bëgg ci cappaandaw li nak tënku nañu ci mooy xibaar yi ñu mujjé am kon déclaration de politique générale bu premier ministre Ousmane Sonko 13 septembre lay am ñu fàttali ni assemblée nationale démb bi conférence des présidents dajé 11 septembre lañu ko japp ñu bari nak gisoon ci né Benno Bokk yaakar jël na revanche ndax 11 septembre bobu buñu ko ci amalé dana tax ñom ñu mëna def motion de censure la ñoo tas assemblée nationale assemblée nationale bobu itam xibaar la bu ñëpp xamné bu ñu yeggee 12 septembre président de la république daf koy tas Ousmane Sonko premier ministre sax dëggal ko ci kaddu yi mu yëkkati keroog ne bu ñu yeggee 12 septembre député yi benn bokk yaakaar yëkkati motion de censure daanu tal leneen lu dul nekk ay député ci assemblée nationale kon mu mel ni fi mu ne yëf yu wëlbatiku na Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñoo féetee ci kaw ndax fexe nanu ba bésub déclaration de politique générale booba nekk 13 septembre te dana fekk kon ñu weesu 12 septembre bi nga xam ne assemblée nationale njort nañu ne président de la république daf ko cay tas lii nag mooy wane ne kon langue politique bi fi mu ne xeexub neen la diggante rawatina Ousmane Sonko ba Bassirou Diomaye Diakhar fay ak waa Benno Bokk Yaakaar ñi jàpp rek te wa bàyyi